di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi ànd ak wér mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp kazalika way taw di yàlla yàlla saafara leen way dawli yàlla yërmande jéggal leen ñu fi des ni yàlla guddal suñu fan tënk di saat mu saxi mbarke suñu mu mel ni démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñu ngi yemoon fi sëriñ bi di waxe naan wa xaysuma nahaaka an sayin fala tamil lahu wa addan la tafala yow mi ba nga xam ni melokaanu murit lay wax ba tey nee na ginnaaw boo bëggee egg ci yàlla eh, ba wut sëriñ wu mat sëriñ tey jëfe ndigalam bàyyi mu ni kon isil mu rabbi laa yuridu fil muridi illa al wusula naajiyan min al marid ndax nee na sëriñ bi nga xam ni mat na sëriñ itteem jëpp ci murit bi itteem ci taalibeem bëggam ci taalibeem mooy rek egg ci yàlla ba mën a mucc ci saytaan mooy war a tax lam lay digal nga koy def lam lay tere nga koy bàyyi ndax moom itteem moom sëriñ boobu lu dara lu may rek nga egg ci yàlla mën a mucc ci pexem saytaane mi nga xam ne dafa féetirlu faman ala xayril ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka nee na nag sëriñ bi nee na yow taalibe bi waaw euh, bépp koo xam ni wala képp koo xam ni mi ngi lay tegtal keneen ku yàlla na nga daw kooku te xam ni mooy ki lay sànq bi maanaa kon sa kilifa gi nga nekkal moo xam nu mu nekk kilifa ci yow waaye waxam yépp ak orientation ci yow jëmalewu ko ci yàlla du la ca xirtal sëriñ bi nee na kooku ko daw ndax dalay sànq lu lay dal ëllëg moo la koy teg waaye wa man ala al ilahi dallaka fa in xaalaftahu fa lil marida tatma waaye nee na ki nga xam ni nag moom mi ngi lay orienté jëmale ci yàlla di la tegtal yàlla subhaanahu wa ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi sallam sëriñ bi nee na kooku soo juyoo ak ndigalam xamal ni seytaane rek ngay àndal kon kun muminan wa musliman wa muhsina in rumta sayra lil ilahi taxsuna kon na nekk ab julit buy jëfe ndigal ab julit buy jëfe ndigal te gëm waaw julit bu gëm te jëfe ndigal tey rafetal ndéem bëgg nga egg ci yàlla subhaanahu wa taala laa tatruki alxaqaaida sunniya wa laazimi alxibaadata almardiya bul bàyyi nag mukk pas-pas bu tege ci sunna te nga taqoo jaamu yàlla ya nga xam ni lu ñu gërëm la waaye wala takun multafitan li gayri man lahu alcibaadu walfiaalu wa zaman bul geestu kenn kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ni moo moom jaam ñi moom jëf yi te moom jamono di dogal lu ko neex def ko wetal te bul gestu keneen ku moom bul xool leneen digal lu dul digalam kon loolu xam naa mooy li nga xam ni moom la ñu war a indi woon tey seen jataayu koor yi agsi fi ni yëkkatee jataay bi leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah